Nous constatons avec beaucoup de plaisir euh, qu'il y a des résultats dans la diversification agricole. Vous avez vu une production de, de poivrons, de gombo, même de maïs. Et tous ces produits-là ont été réalisés dans un délai de trois mois. Et vous avez entendu les résultats qui ont été évoqués par les jeunes, où par semaine, un jeune peut se retrouver avec 100 kg de poivrons qu'il vend à 1000 francs le kilo. Vous voyez donc c'est des résultats très concrets sur la création de richesses pour la zone, également pour la création de richesses en faveur de la jeunesse. Et donc euh, c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate cela. Et vous avez également vu que l'eau est gérée par de l'énergie renouvelable avec des panneaux solaires qui permettent justement d'avoir un mètre cube à moins de 100 francs euh, CFA. Donc c'est un excellent projet et je crois qu'il faut vraiment l'encourager. Ça c'est l'un des trois projets parce qu'il y en a un également à Thermorifal

et nous ne pouvons que nous en féliciter. L'exemple que nous avons ici, c'est d'abord la concertation au niveau local, au niveau des populations. sont les populations elles-mêmes qui mettent leur foncier à la disposition des projets. Et donc euh, cette concertation locale que nous menons avec les populations, avec les chefs de village, avec le, les services de l'État, nous permet justement d'avoir une gestion concertée. Et ces investissements-là aussi concourent à favoriser la sécurisation plus de 50 millions d'investissements sur le forage, également une, un aménagement donc des, des, terres, qui fait que nous sommes dans une véritable zone de protection foncière, mais surtout de création euh, de richesses pour la localité. Ce que nous avons seulement, un projet d'aménagement euh, de la localité. Nous travaillons toujours, aujourd'hui actuellement nous avons un poste, un programme d'occupation des sols qui est en cours de réalisation, un plan d'aménagement également qui va combiner euh, aussi bien l'habitat Donc il faut que nous puissions garder la ruralité de, la commune, parce que la ruralité est vecteur aussi de, de valeur. Et donc cette combinaison entre l'urbain, la ruralité, l'industrie et l'agriculture qui fera justement que nous puissions avoir un, un écosystème cohérent dans lequel justement les populations peuvent vivre convenablement. Et je crois qu'il faut aujourd'hui traverser ce modèle-là il faut pas être dans un modèle on détruit complètement la ruralité avec que des parcelles, non. Il faut combiner l'entreprise, combiner la gestion agricole, combiner l'habitat. il faut que ce soit une zone aussi bien d'habitation, mais également de création d'emplois et de richesses. Puisqu'il n'est pas le, le concept qui consiste à Faire habiter les gens en milieu rural, qu'ils aillent faire 100 km dans la ville, c'est un concept dépassé. Il faut arriver à exploiter cette richesse pour concilier et l'habitat, et l'industrie, et le développement agricole. Vous avez vu, l'aéroport a fonctionné dans de très bonnes conditions. Donc l'ensemble des dispositifs sur le plan sanitaire ont été euh, en œuvre et fonctionnent. J'étais à l'aéroport ce mardi dernier. Euh, évidemment, la montée en puissance faisons. Nous avons en moyenne aujourd'hui à peu près une, euh, quasiment une quinzaine, par jour, alors qu'on peut être une cinquantaine de vols. Donc ça, ça va de manière progressive, mais la préoccupation qui était, surtout d'arriver à limiter les risques de propagation et de contamination de la COVID au niveau donc, l'ensemble aéroportière. Et ça, pour l'instant, nous y sommes avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec l'ensemble des services pas une zone de contamination, mais également aussi à rompre la information qui dit qu'ils ont euh, mis des restrictions sur les déplacements, ce qu'ils appellent les déplacements non essentiels à destination de l'Union européenne, provenant de pays tiers. Le Sénégal appliquait la réciprocité, en disant simplement également, les pays qui appliquent des restrictions sur le déplacement des Sénégalais dans leur territoire, le Sénégal applique exactement le même principe de réciprocité dans le territoire sénégalais. Vous savez, la réciprocité, c'est un concept du droit international. Toutes les règles toutes les conventions signées au niveau de l'aviation civile, notamment la Convention de Chicago, le principe fondateur, c'est d'abord la réciprocité, le principe d'égalité et d'équilibre des charges. Autrement dit, l'équilibre des charges, l'équilibre des capacités fait que si toi, Babacar Ndao, tu, as une, dans un pays qui a une compagnie qui fait 7 vols sur le Sénégal, le Sénégal a le droit également de faire 7 vols sur ton pays. Donc le principe de réciprocité, c'est un principe Dans les prochaines semaines, nous allons trouver ce qu'on appelle une zone d'atterrissage commune, puisque les diplomates des deux pays discutent entre eux. puisqu'il est évident que ce principe pénalise d'abord européennes, puisqu'ils ont un, nombre de passagers qui n'arrivent pas à transiter. Et donc, toutes ces questions-là sont en train de, discuter euh, l'angle du droit international, mais également sous l'angle du respect des intérêts du Sénégal, puisque le Sénégal a des intérêts importants à défendre sur le plan du transport aérien. Nous avons une compagnie nationale sur laquelle nous avons investi aujourd'hui en train de travailler sur le hub du Sénégal. Et donc naturellement, sous l'instruction du président Macky le gouvernement du Sénégal a des postures de défendre mais fermement les intérêts du Sénégal en respectant tous nos partenaires et tous nos alliés bien entendu. waaw ñu sant yàlla bu baax euh, gërëm leen yéen ñi fi teew Babacar yow ñoom ma sëriñ ak ñoom Khady euh, lii li muy wane rek mooy euh, li ñuy faral wax ci wolof naan wedd ba de yenn saa mille francs gis nga fi ay xale yoo xam ne nee nañu semaine bu nekk dinañu am lu mat téeméeri kilo ci poivron xam nga cent kilo chaque semaine kilo bu nekk nga jaayee ko 1000 francs ah loolu solaire bu mag a mag la loolu li muy wane rek mooy suuf si mën dundal euh, ki koy jëfandikoo ci anam yu mucc ayib tool bi nag comme ni ngeen ko waxee forage la panneau solaire ak arrosage lu mat juróom benn fukk ak juróom-ñaari parcelles ñu ngi fi daanaka dëkk bi yëpp gis nañ seen bopp ci lii nga xam ne moom la ci def lii nag benn la ci ñetti tool yu ñu am fii ci Notto Diobass yu mel nii boo demee Kër Mori Fall am na boo xam ne ëpp na bii ñetti yoon boo demee également Mbodiène am na bu ñu tàmbalee boo xam ne aussi ëpp na bii ñetti yoon ndax plus de 15 hectares bu fekkee fii juróom benn fukk ak juróom-ñaari famille ñu ngi fi liggéey xaymal li war a nekk ci ñett yoon ci loolu ci kër Mori Fall ak kër euh, fële ca Mbodiène loolu dafa méngoo ak programme bi nga xam ne dañ ko tëral ci commune bi mooy fexe ba suuf si nekk outil de développement nekk outil développement nag mooy nañu fexe ba dëkkuwaay yi ak liggéeyukaay yi mën a méngoo lëkkaloo ànd ci commune bi ndax euh, yéen a koy wax sànq gis ngeen ne Thiès mu ngi màgg aéroport bu si sorewul waaye nañu fexe te mooy sunu euh, programme fii ci commune bi mooy concilier la ruralité et la modernité fexe ba nit ñi di mën a bay seen tool yi am dëkkuwaay waaye aussi fexe bay entreprise mën a teew loolu mooy sama taxawaay moo taxit programme yi ñuy def ci wàllu suuf dafa nekk concertation bu ñu wonee askan wi li ñu bëgg a def rek euh, loolooy indi ne doo am benn coow fii ci commune Noto moo tax gis ngeen ñetti tool ngi fi Euh, projet Prodac ngi fi déggu leen ci benn coow parce que concertation large la boo xam ne dañ ko def ak chef de village yi def ko sous préfecture yi def ko également ak nit ñoo xam ne lëkkaloo ak ñoom ci wàllu gestion foncière pour que mu nekk loo xam ne day di développement mais mu nekk loo xam ne aussi day aar suuf si xam nga gis nga dafa am façon économique boo xam ne Babacar dafa cosaanoo te dañ ko war a changer maanaam monde rural nekk bërëb boo xam ne main d'œuvre moo fay jógee dem teeru liggéey ñoo wàccat loolu dañ ko war a dépasser alal àddina ci suuf la nekk ak ci ndox bërëb boo xam ne nag suuf nga fa ndox nga fa bu ñu fa développé nag ci ñun la loolu wala fii ngeen gis projet yu mel ni ndax xam nga tey tool bi xel xalaatul nit ñëw di ko jaay mbaa di ko sàkk lii mooy njëriñu dëkk bi donc gis ngeen fii développement am na fi énergie renouvelable am na fi ndax euh, ndox mi ci wàllu solaire lañ koy fonctionner jeunes yi taxaw nañ ci dëkk bi jigéen ñi taxaw nañ ci dëkk bi loolu aussi gën a ñoŋal éducation des enfants ndax famille bu ñu toogee ci dëkk bi ah dinañ am jotu ñu jox leen yar boo xam ne ëllëg ñoo nekk les citoyens ñoo nekk les dirigeants de la commune donc loolu nekk loo xam ne lu ñu sawar la te concept bu ñu développé la fi ma nekk wax yow au niveau de Notto Diobass ñu ngi liggéey ci un programme d' occupation des sols boo xam ne day développé bu baax a baax a baax méngale dëkkuwaay également entreprise mais aussi ak ruralité maanaam fexe ba ñu gën ko saxal ndax amul benn réew ci àddina bi boo demee Amérique te ñoom ñooy sàmm sàmmkat yi gën a mag boo demee Chine noonu amul benn réew nga xam ne mën na am développement industriel te réglé wul problème autosuffisance alimentaire maanaam moom fu mu ci wàll lekk. mbas moom nañu tënku rek ci lu la waa kër docteur sant mooy masque yi geste barrière fexe ba lépp luñ ci sant ci fànn googu rek ñu ñu ñu doxal ko aéroport nag bi ñu ko ubbee am na ay matukaay yu ñu fa jël ci wàllu contrôle mais aussi ci wàllu sàmm. aar kaaraange askan bi donc loolu aussi ñu ngi koy def ndax tey ku jógee aéroport bitim réew ñëw ay AIBD am na fiche boo xam ne jël nañ sa tur jël sa téléphone xam foo dëkk bu ñu la natee te amuñu ci yow benn feebar mën nga dem ci biir réew mi bu fekkee da nga dañu gis ci yow lu niroog mbas mi waa kër docteur waa ministère de la santé am na ay matukaay yu ñu jël mais même bu fekkee da nga dem te gis ñu ko woon ñu gis ko ëllëg dafa am aussi am na ay jumtukaay yoo xam ne waa kër docteur jël nañ ko donc vraiment maa ngi ñaax sama bopp di ko ñaax waa Sénégal yëpp ñu góorgóorlu ba lépp lu ñu santaane ci wàllu aar kaaraange rek ci contre mbas mi contre Covid 19 contre coronavirus ku nekk béy ci sawar ndax loolu mooy sunu njëriñ te loolu mooy njëriñu Sénégal.